asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 26 avril 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la xëy commencé seeti ko yëglikaay bi nag dafa ñëwaat bërki démb ci li nga xam ne nii moo amoon ca 2STV doxoon ci diggante Modou ak kii nga xam ne nii moo di Eumeu seen ñoom ñaar nag yëglikaay bi ñëwaat na ci ñoom waaye Modou Lo la njëkki nee na Modou boo xoolee kere daal dafa mel ni koo xam ne ku bég la waaye tamit koo xam ne daal bàyyeeku amul benn pression loolu sunu làmba ko seetlu ñëw ci moom waaye tam am na leen loo xam ne yëglikaay bi seetlu na ko ci Modou Lo maanaam daal li nga xam ne moo di sérénité ba nga xam ne moom la Modou Lo def moo tax sunu làmb di laaj lan moo làqutu ci ginnaaw sérénité boobu nga xam ne tamit seetlu nañ ko kere ci Modou Lo waaye ama seen yëglikaay bi ñëw na ci moom ci révélation boo xam ne wala boog lu doy waar loo xam ne wax na ko fa ca 2014 ne ba mooy bëre ak Modou Lo day ne na bañ na suba la combat bi laa yëg ne man combat bi moom dama koy ñàkk ba gagné kii nga xam ne moo di Modou Lo Eumeu Sène moom moom moo wax loolu kera loolu daal mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye ba tey nag ca jàkkaarloo ba ba tey jàpp leen mu mel ni ki nag ki nga xam ne moo di Eumeu seen moom la mu def doy na waar ndax ba muy ñëw fii nga xam ne mooy ci destivé couronne roi des arènes da koo ëndaale dugal ko ci otoom di wane ne que daal moom bis bii day li mu téye muy couronne bi da koy teyaat yóbbu ko Pikine kafu ci fawu ci te réewu ci sunu làmb xëy tey dinu ko wax waaye jamono jooju nga xam ne ñu ngay jàkkaarloo ka nga xam ne moom lañ tudde drapeau ba di parrain ba di Youssou Ndour moom la mu leen dig leer na nee na daal ñaari mbër yi dañ leen invité fii nga xam ne moo di ci États-Unis d'Amérique loolu Youssou Ndour moo ko fa wax waaye Modou Lo tamit jamono jooja day mu ngay jaale Balla Gaye numéro 2 kii nga xam ne moo di grande sœur bi fi bàyyee ko woon te wàññeeku bu yàggul leneen loo xam ne tamit gis nañ ko wala ñeneen ñoo xam ne moom seenu combat ngi waaj ginnaaw démb ba Moussa Ndoye wooye ay mbokkam wax la ko neex garga mosa tamit moom def na ko daal di woote wax la ko neex waaye la garga wax nag Moussa Ndoye koo tontu comme olof nee na tontu du foro garga nee na ko li leer ba leer day jàppal yow dóoru fi kenn mu daanu say wax nag bëri na lool waaye bu buñ ca yeggee di nga xam ne lépp dëgg la waaye daa mel ni garga nag dem open press am booba wéetu ca woon ndax waa parcelle wuyu si ne woon nañ ko rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di mbëri parcelle bokk na ca Moussa Dioum ak Papa Sow mbirum Papa Sow laaj nañ ca garga garga ne li leer ba leer day Papa Sow du tey rek la ma sa def lii xëy na kay daaw ngeen ko gis waaye daan naa am bés mu di ma woo di ma jox ay conseil am garga wax loolu ñu ne ko ñàkk ñëwug sos mu ne loolu moom tàmm naa ko ndax sos moom bëriwul lu muy ñëw ci samay presse ndax sos nag garga ne li leer ba leer sax sos léegi moom politicien la maanaam daal ci mbirum politique ci lay yëngutu loolu garga moo ko wax waaye Moussa Ndoye ba tey daal garga nga koy xamal ne ko day xeex bi ngay wax na nga ko def rek boo ko defee di xam ne lépp dëgg la waaye ci jamono jooju nga xam ne nii day ñu ngay waxante loola ñoom ñaar sunu làmb am na benn seetlu bu mu def nee na boo xoolee bokk nañ ko ke ca jëkk moo di lagros ñoom ñaar bokk ko bokk nañu bébé waaye bokk nañ tamit kii nga xam ne moo di tonnerre sunu làmb def boobu seetlu waaye Abdou Bakhoum moom ku ci ne mu ngi lay dànkaafu nee na Moussa Ndoye moom gaaw moo ko waaye waaye nag na xam ne garga yor na ay croisé yoo xam ne day croisé droite bu dangereux yor na ko Abdou Bakhoum moo xëy tey di wax loolu ba tey ci combat booba Les Échos ñëw na ci garga moom la mu xamle daal ca Les Échos nee na Moussa Ndoye day dinaa ko souffrir loo maanaam daal dinaa ko teg lu metti loo xam ne day dina souffrir ba yëg ne moom souffrir na waaye dañuy dem ñoo xam ne seenum combat dañoo bëgg ñu bëre ko te mu te ticc mooy Tapha Tine ak Ama Baldé la ko téye nag sunu lam ne na lenn la côté Tapha la ndax Ama moom bu dee moom la daa mel ni promoteur ba am na ko ci poosam ba pare waaye Tapha daal mooy laaj loo xam ne day promoteur ba nee na mënu ko tey suba waxi noppi muy Pape Abdou Fall Fall waaye leneen loo xam ne démb amoon na Fallou Ndiaye andi woon ko mu nga ca Leewtoo TV muy doxoon ci diggante booy job bu sàkku xam-xam ak kii nga xam ne moo di anti bu écrit Ndakaaru waaye daal combat ba boo bëggee dégg-dëgg six secondes wala sept boo sax est-ce que mat na ko ca la yem mel num congoo la ñu def anti woon ko ne duma sa morom daan jël bu rëy rëy booy job bu parcelle nekk fa nga xam ne moo di ca sàkku xam-xam waaye sunu làmb dafa ñëw tey ci làmbi simple ji keneen koo xam ne gis nañ ko fan yi mu ngi jógaat ndànk-ndànk muy koo xam ne mooy ordinateur ñeenti drapeau yoo xam ne daal nañ fi mu nekk nii day tegagu na ci loxoom mu mel ni ki daal moom mu ngay ñëw ndànk-ndànk waaye keneen koo xam ne day xale la te làmb simple ji war koo bàyyi xel di yëglikaay bi moo ci ñëw tey muy sunu làmb moo ko gëstu muy doomi bitanti ñu koy wax kii nga xam ne mooy gànja faama ñaar fukki ak benn yëglikaay bi ne moom la am waaye daal boo bëggee dëgg-dëgg il di saalum yi moom mu nga fay wane boppam bu baax a baax ay njombaatoog dëkk ya ko wër xale bi daal nana fi mu nekk nii moom li mu bëgg daal mooy nekk roi des arènes wane boppam ci lamb bu baaxa baax moo tax sunu lamb toppal na ko waaye gànja faama daal loo ci mën a dégg moom mu ngi wane boppam bu baax a baax ci lamb simple ji ndax nag bëre ba mën na ko saf na xorom lool te saa yu feccee amateur yi simple dal yuuxu ndax xorom sa moo tax taala njaay loo ci mën a dégg looy def fexe caa am xorom da ciy baax waaye gànja faami mii nag ma wax la leen tey moom la ñu invité ca groupe fans club Babacar gaa yaa ko invité tey mooy seen invité du jour mu war a am vingt heures olof a ko wax koy xalam di ca jaayu barke ba yaay korom sunu yaay kine lam wayoon na ko bu ko kenn fàtte. asalaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ma leen di wax euh, namoon naa leen trop tey euh, ma ñëw ak ci seen revue de l'arène comme fan yëpp ni ko Ndeye Comba ànd ak yéen may nii sama mag sama xarit Babacar euh, namoon naa la. Aysa <laughs> maa la gën a nam ah maa la gën a nam di la nuyu sama rakk sama xarit xam nga di la ziar di la ñaanal jàmm di ko saaxu ci yow di la wax ne que yàlla na yàlla gën a wéral baat bi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga parce que moo tuddoon noonu ah euh, ak feebar ñoo ànd quoi waaw noonu loolu mbirum suñu borom la mais ñu wéral yi ñëpp yàlla na leen yàlla wéral ah ñu ne si kaso yi tamit yàlla na leen fa buur bi yàlla génn rek delloo ci seen sago daal parce que loolu moo am solo daal àddina moo tëdde noonu Babacar ñu ñëw ci jàngat bi tey ak li nga xam ne amoon na fi keroog mooy face à face bi doxoon diggante Eumeu seen ak ki nga xam ne ni mooy Modou ñu ñëwaat suñu lamb ñëwaat ci ku nekk ni mu ñëwee woon ci face à face bi mu ñu xamal ne sérénité bi Modou Lo moom moo leen jaaxal moo leen yéem ñëw reetaan relax décompressé sérénité boobu daal moo leen jaaxal ñoom. waaw loolu moom ker seetlu nañ ko si moom parce que boo xoolee am na benn moment boo xam ne sax man am na fu ma ko fekk ci biir kii fu mu toog xam nga da ngay gis ne que kii mu ngi relax mu ngi xam nga reetaan kontaan xam nga loolu nag euh, euh, li ci nekk mooy ak ak dal bi loolu mooy pour man lamb ji xëy na xëy dama yaakaar ci côté loolu la laaj xëy na moo tax mu indi façon boobu parce que tamit bés soo ko yenoo rek ba teg sa bopp pression man naam boo ci dem. Euh, boo ci demee ni nga waroon a mel ba waroon nekk en cent pour cent mën na am sa cinquante pour cent yi mën na ci wàññeeku tegoon bu keroogee dootul gën ci yow xëy na moo tax mu bëgg a entamé noonu combat bi nga xam ne day que loolu pour man mooy li nga xam ne nii bataille xam ne boo ko gañee ci biir combat bi euh, mën na la dimbali ci biir làmb ji day am importance trop xëy na tax mu indi façon xar kanam boobu bëri ki dem fële jëdees daal làmb la ji nga ne tamit dina neex trop trop ci diggante Modou ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène mais tamit Babacar euh, mun naa tamit euh, ki nga xam ne mooy Eumeu seen gis nañ tamit sourire bi la affiché ñëw àndaale couronne bàyyi couronne bi bàyyi ko ci otoom gëm-gëm bi mooy dina kuroon bi da koy delloowaat fa mu jógee woon. waaw Eumeu Sène moom ci côté sourire maanaam reetaan. buñ noon ku daax xaritaan ci lamb ji wala ku jàmm ci lamb ji ëmb la ñuy kupp jàmm tànn parce que loolu yàlla moo ko ko di jagleel parce que am na loo xam ne c'est a boo xoolee keroog maa ngi toog nii ñu jàkkaarloo parce que fi ma toogoon enfant dañ jàkkaarloo mu xool ma xam nga reetaan maanaam loolu dafa lu nature ci moom loolu tamit nekk lu ci ko bu baax a baax ah loolu nag yàgg na ci moom yaa dégg kon loolu dañuy wax ne rek ba tey loolu nag da lay dimbali rek li ma la waxoon sànq ci Modou Lo rek moom mooy nekk foofu ak dal loolu dafa baax si doomu aadama leneen ci des mooy couronne boobu mu ëndaale loolu mooy wane ne que Eumeu Sène lamb ji da téye en main jël en parce que gis nañ ko ci signature yi buy ñëw la mu doon wax rek la mu fi waxoon Balla Gaye ci seen combat bu deuxième combat ba moom lay continuer ba tey mooy que ni bërikat bi kese ñëwatul mais mbër mi mooy hmm. mu làmbool day da bokk moo xam mystique bi moo xam décision bi moo xam lépp lu mu ma daan loolu nag moo tax ba nga xam ne daal jàppal ne combat bi ñu jëm moom ci ñaari mbër yi vraiment bés la bi nga xam ne ku ko yombal Modou Lo bu daanoo yaa ko ko xañ ku ko yombal Eumeu seen bu daanoo yaa ko ko xañ mais loo ci mën a dégg daal ku ci ëpp entraînement ëpp décision gën a jox bér bi bés bi cër xalaat naa ne combat bi fa muy mujj yaa koy gagné mantaal bi tamit ku ko ëppale yaakaar naa dina dimbali bu baax a baax a baax a baax parce que dama naan fit bëre fit moom yàlla moo koy def si nit bëre da nga koy man am loolu leen ci dooleel nga yóbbaale ko doole moom dañ koy uti kon mis waaw ak jom bi mystique nag moom après mën nga ko indi sax quatrième position parce que day làmb day toll foo xam ne bu dingootee ba dingoot moom bëre dong nga fekk fit ak doole fay euh, boobu noonu dem seeti combat boo xam ne nii le 28 incha allah la war a am muy dox diggante Garga Mbossé ak ki nga xam ne ni mooy Moussa Ndoye kii di Paf production taxawal ko ñaari mbëri nag euh, def nañ seen i open press bërki démb Moussa Ndoye la woon ca Yaraax démb Garga la woon mu ñëwaat euh, ci li nga xam ne ni mooy adversaire am ñëwaat ci ay Papa ak magam yi di Zos ku nekk daal Garga dalal na xelu supporter am waaw loolu day comme ni ma ko waxoon démb rek Olof Ndiaye moo ne ku fóotal mbëtt da bar euh, ça veut loolu mooy que ni Moussa Ndoye bërki moo woote ci wax ak presse bi wax li mu nar ci bésam Garga itam démb kazalika mu defe ko noonu ah moom itam xamal wax na daal ci diggante ak Moussa Ndoye li mu ci wax na comme côté xeex boobu kani euh, moom dóorul kenn mësul kaw mësul mu daanu mm. ah waaw loolu moom ñoom ñaar xam nga mbër yi bu ñu tolloo fii ku ci ne di nga jéem a déstabiliser sa morom ci côté wax mm-hmm. yaa ngi dégg avant ñu yëg ca bés ba wan ko ne affaire yi man la tamit dalal say xelu supporter Garga Mbossé nag nekk na champion bi nga xam ne ni tey ci làmb dama naan sax euh, xëy na nit ku ne dafa am nu yàlla binde sa yoon mais xëy na heure bi sa waroon na fekk mu gën a dépasse fii ci làmb mm-hmm. parce que macha a mën na bëre parce que mbëru mbapat la mais bi des mooy taxawaayam macha allah baax na xale la yaa ngi dégg te lépp li nga xam ne ni moo nekk ci mbër nekk na ci moom ba pare am na encadrement bi moo tax nag diggante ak Moussa Ndoye jàppal ne dimanche dara dara dara mënu ci yomb parce que loolu ne ci Garga Mbossé tamit gis nañ lu mel noonu ci Moussa Ndoye yaa ngi dégg muy ñaari mbër yoo xam ne fi ñu toll fi mu nekk nii ku ci daan combat bi dimanche rek dina la yokkal loo xam ne ci sa lamb moom waa xaw ma VIP xaw ma de waaye boo leen jëriñ tam di di nga fëgg seen buntu par force waa bien sûr wala boog espoir yi jiitu ci lamb ci ngay bokk ndax bu dee Moussa Ndoye la xool lance bi mu jógee Garga Mbossé tamit nga xool fi mu taxaw kon combat bi daal xam naa ne enjeu bi trop mais ki ko daan daal dina am lu bare bari lu mu yokk garga war a génn est-ce que tey enjeu bi ëppeewul foofu noonu ci parcelle. waaw loolu moom boo bëggee dégg-dëgg moom mooy li am parce que boo xoolee jaar nañ fi Laye Pythagore Dame Sène ba bërki démb ci Boy Diop moo boog démb ci Boy Diop kon len parcelle moom actuellement moom fi mu nekk nii moom ah, xaw ma garga nag ndax dina nangoo jël pression parce que lamb boo di ci demee pression est que du métti mais xëy na kay mu yokk ko courage ak jom la yaakaar parce que tamit fi mu nekk nii tey moom moo war a jéem a décanter situation bi pour dimanche es ce que Moussa dina ko ko nangul <laughs> voilà la question loolu mooy question wala boog mhm. foofu foofu la saw saw bi nekk mhm. waaw foofu la ñuy teg baaraam bi. waaw ñu teg baaraam bi ba dimanche incha allah réponse bi moom euh, yàggatul ñu daal di dem si beneen combat boo xam ne nit ñi ñu ngi koy coow ba ba léegi muy dox diggante Ama Baldé ak euh, Tapha Tine ñi xamal euh, coow li moom bu dee yàgg na si côté tafaatin la parce que kii di Ama moom nangul na promoteur bi mais Tapha mooy laaj tamit lu bari waa démb Pape Abdou Fall wax na ma lu mel noonu fii ci micro Leewtoo TV que ni moom daal bu dee côté Ama Baldé bi c'est Ama bi c'est ok mais côté Tapha Tine nee moom la muy laaj moom mënu ko te du ko def loolu nag wax ju leer naa ñu la man daal bëgg naa ci nit sa kàddu la ngay man nga teel koo wax mhm. ci début ba waaw wolof ne na def loo mën wax loo mën ma déggoon sëñ Modou Niang di wax ne que bopp bu rëy bopp bu tuuti te seet moo ko gënal bopp bu rëy tey mitti Pape ko xam mhm. na la ne ca moom laaj moom mënu ko te du ko def la mu moom am na droit ne du mhm. parce que loolu rek moo fi nekk ah. parce que man li may wax tout le temps laay waxaat encore une fois bëgg yéenewuñu kenn ngay dugg ci dara ay satu di ca génn di ca génn ak Eh, ay moo xam ay pertement wala ay défaite dañu bëgg looy dugg boo cay génn nga génn ci ak réussite ak ndam rawatina promoteur yi nga xam ne ñooy jël seen ay millions di ko dugal si làmb ji Babacar ñu dem ci journée bi nga xam ne amoon na démb journée Fallou production la woon diggante ki nga xam ne nii mooy booy Diop ak Anti mu nekk combat bu gaaw comme ni nga ko waxee ay 5 secondes 6 secondes mais tamit journée bu neex Babacar. waaw démb moom vraiment journée ba neexoon na trop ak ki nga xam ne nii moom mooy Ndiaye production Fallou Ndiaye ñu koy nuyu dem tombé ak alxames mais terewul lamb ji na ay nit boo xoolee bëri ba moom comme li ñuy wax rek. yéegu yéexul <laughs> yàggul guddee luñ fa kenn arbitre dafa ba muy génn seen diggante la ko kii di boo jóob ñam benn ku waaye ba mu ko fa la ko anti fekk daw rek bal ko rek taf ko daane ko jéggi ko dem yoonam mu lay wan ne kon dafa mel ni ah, démb daal la feeñ mooy maa la man maa la ëpp doole parce que làmb ju gaawee noonu moom ci ay 5 6 secondes gis nañ fi façon seconde yu mais defe naa boobu moom defe naa mu ngi door a am waaw waaw Babacar dañuy jeexal ak euh, lutte simple bi ki nga xam ne nii mooy euh, ordinateur moom la sunu lamb tey ñëwaat euh, ci ay jaar-jaaram wax ni ordinateur dafa dellu si lamb parce que gëjoon nañ ko gis ak yenn exploit yi si lut simple bi mu ñu xamal ni tey mi ngi quatre drapeaux lu toll ci ay 1 million 500 et quelques mille ci xaalis ak ay nag mu nekk tamit loo xam ne nii dañ ko war a rafetlu. waa loolu mooy li ñuy wax rek parce que boo xoolee dafa nekkoon ci ay blessure ba fajuwaat ñëwaat. ah olof nag nee na xëcc bu daggul digg ku yàgg ci teen baag fekk la ci ordinateur euh, mbër mu mag a mag la champion la ci lutte simple mën a bëree loolu macha allah kon defe naa tey su dikkaatee nekkaat ci forme kenn xëy na ordinateur jëlul nangam kay bu fekkente ne mu ngi wër moo ñuy bett mais quant jël na dara moom mënuñoo bett parce que xam nañ ko bu parce que li tax ñu tudde ko ordinateur parce que bëreem moo tax ñu koy woo ordinateur mu dëkk ñaaxar di champion bu mag a mag vraiment ñu koy en félicité encore une ko encourage di ko wan ne que làmb noonu la ne si baisse mais nag boo góorgóorloo yàlla mën na ñëwaat may tamit duñu ñu fàtte benn xale boo xam ne euh, Aysatu euh, mooy Gandia Fama moom tamit nekk un grand champion wala bëgg ko nekk boog nekk fu ñuy wax dëkk fu ñuy wax bitenti euh, di moom tamit boppam bu baax a baax parce que làmb xorom da cee baax te mbër bu safa saf xorom la mm-hmm. tey di fàttali kan neega sax fans club waaw mooy seen invité tey xam ne ñooy ñooñ nga xam ne awma seen fay ñoom grand laay ak ñooñu moom la ñu invité tey seen vingt heures Gandia waaw xam naa kon tey euh, whatsapp bi dina wàcc foofu noonu parce que mbër moom ci biir euh, groupe whatsapp waxtaan bi dina neex torop incha allah mbokk yi suivre Leewtoo TV li la leen andiloon na ci seen revue de l'arène di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV di ñu dokk di ñu dooleel di nuyu képp koo xam ne rek yéen a ñuy béggee di leen wax euh, rek tàggatoo bi. Aïssa waa du mën a ñàkk di nuyu ñu ñuy suivre ñëpp leen balu ak si aljuma ji xam nga tey la aljuma di jégalu ñëpp di balu ñëpp di wax ne rek Aïssatu ñun ay ay doomu aadama lañ ay nit lañu lépp lu ñu fi wax rek muy lu jub jàpp leen ne sunu borom bi moo selal sunu ay xel ba mu jàll ba mën a jub mais bu ñu juumee rek jàpp leen ne doomu aadama moo matul encore une fois moo xam interview la moo xam reportage la moo xam revue de l'arène la fu ci kàddu njuumte amee rek jéggalu ko encore une fois ndax woon ci loolu mais ñuy siifar duñ leen mën a bañ a nuyu ku mel ni Xaadim Bamba nekk fii nga xam Xaadim Bamba partout sax la tudde boppam moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax xam nga Tafa Ba xam nga gars yi Mamadou Guèye Ibrahima tuuti yaay Sarr sama TV Babacar Sow ak ki nga xam ne mooy Mamar Samb ñoom ñëpp ah duñ leen fàtte parce que fu buñ leen limee rek dañuy juum mais képp ku ñuy suivre rek Yankuba Sané di suivre Leewtoo TV rawatina revue de l'arène ñoom Khady Rose Ndiaye wala Khady Ndiaye Rose maa koy nuyu tamit depuis Allemagne mais actuellement mu ngi fi ne moom mooy Sénégal euh, di nuyu ki nga xam ne tamit moom moo di Cheikh maam Cheikh borom Daaru Salaam borom Daaru Salaam Couture gis nga tey lim ma solal du ma ko fàtte moom di sama doom di sama lépp xool ma rek ñëw nattal may rek ñëw jox ma Cheikh yàlla na clients yi gën a yokku waaye tamit ki nga xam ne moo solal Talla Ndiaye tey a baax Talla Ndiaye pap tamit macha allah di ko nuyu tey moo solal Talla lii ci noir ak giri kon tey ri ñuy solal daal Rimka Couture Cheikh maam Cheikh borom Daaru Salaam Pam Mbaye ak ñoom ñëpp borom Senova Elas Dieng yàlla na loxo yi gën a wér clients yi yokku tuuti yaay Sarr maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñuy suivre coach su Jabong depuis France Xavier Seck nuyu naa ñëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm xol bu sedd Aysatu yaram mu sedd mais yàlla na nga wér ak jàmm bu baax a baax Siri Mohamed Niang waaw Babacar ci loolu la ñuy tàggoo internet yi leen jox rendez-vous lundi si benn revue de l'arène